def ko ab yatam di direct dóor képp koo xam ne bokk nga ci kuje gi ndax buggul kuje ndax ñemewul kuje moom mbër la moo xam ne day bugg mooy bàkku bërëb bi moom day bëre takkandeer moom kese mooy bëre mooy daan mooy gañe bi ñu seetloo loolu ñu ne ah ndax kat am na yu fi jot a jàll ndax seetlu nañ kaawu kii di euh, Karim Wade seetlu it kaawu Khalifa Ababacar Sall waaye lu tax tey nguurub Macky Sall bëgg a profitoo ci benn affaire boo xam ne ñaari sénégalais la ñoo jote kii jiiñ kii ñu bugg cee profitoo fexe ca naka lañ ca mën a def ba éliminer ki nga xamante ne nii candidat la leaderu parti la maanaam aujourd'hui ku mu neex ku mu naqadi ku bëgg ku bañ moom moo sol costume chefu opposition mu bugg fa jaar ci porox ndoll googu profité ko éliminé ko ci loo xamante ne ni affaire judiciaire la waaye nag ñun ñu ne cette affaire maanaam mbir mii nga xamante ne dafa opposé Ousmane Sonko ak Adji Sarr suñuy organisation bëgg nañ mu leer bëgg nañ xam mbir mi nu mu demee nu mu tëddee waaye di ci xel mi tey rek mooy dañoo wóoluwul justice bi wóoluwuñ ko benn yoon. ndax du benn du ñaar du ñett du ñeent wane na boppam ne moom justice bu féete la yat la bu nguur teg di dóore kon bi police gendarmerie yónnee Ousmane Sonko convocation moom mu ne demut teg ko ci ay article yoo xamante ne ndeyum charte réew mi moo ko ko may gis nañ ne ñoom seeni pexe mooy jéem a fexe ni ñu violer loolu ko ndeyu charte réew mi may ñu ne nag ah attention duñ ko nangu noonu nga defoon Karim Wade noonu nga defoon Khalifa Ababacar Sall noonu nga rajee Sonko sax ci liggéeyu kaayam noonu nga fi jàppee Guy Marius noonu nga fi jàppee Babacar Diop Karim Xurum Xaq Boubacar Sèye Assane Diouf noonu nga fi jàppee ay nit ñi bokk ci Y'en ak lu ñoo lànk ci rek yóbbu ab leetar pour yëgal autorité bi ne ko dañoo bëgg a manifester wala yóbbu ko ci benn bureau ne ko wàññil say njëkk ndax cher nañu ñu ne mais lii nag dafa ëpp kii nag fan nañ jëm ak moom bu fekkente ne moom yat wu ne pare na koo jël làbbali ko ci kaw képp koo xamante ne ni yow pare ngaa taxaw jàkkaarloog moom pour xëccoo ci xëccoo boo xamante ne nii loolu la la ndeyu charte réew mi may ñu ne nag non attention ñun loolu mënuñ ko setaan ndax nag kat ci procédure bii nii dañ cee gis dañ cee seetlu ab façon boo xamante ni nii nguuru Macky Sall mu ngi koy bugg a def ci ab muusub ak akum tappale pour fexe maanaam ba élection yii di ñëw mu jaar ci prox ndoll moom dong mu doon candidat wala sax moom mu créer propre opposition am tegal ñu fi ay xeer ak ay xur dabb ba askanu Sénégal duñ xam fan lañ jox seen bopp ñu ne nag loolu ñun duñ ko setaan kon nag muy FRAPP muy FDS muy Y'en mi ngi woo képp koo xam ne doomu senegal nga ne fii ak nga ne bitim réew ngay góor ngay jigéen ngay mag mbala ngay ndaw mi ngi woo képp koo xam ne ci syndicat nga ne di woo képp koo xam ne ci parti politique nga ne di la wax ne nag jot na jot na bu ñu setaanee réew mi dina nasax bu ñu setaanee mag yi dinañu takk ñu ñëpp ay buum di ñu drainer ci mbedd mi def ñu ay xar kon nañu pare ndax loolu pare wuñ ko nangu ci benn yoon ñu ne ñu ngi woo suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi di leen wax ni ah kilifa diine kilifa aada ci ci ab dëkk am na solo am na solo waaye solo bi ñu bëgg tey moo ñu dimbali ñu ba kii bëgg a jël réew mi taal ko ñu wax ak moom ba kii bëgg a jël réew mi yóbbu ko fi ngay wooyee fu fu fu fu ndox dul am ñu artu ko ñu ngi koy ñaan kilifa yi ndax nag ci fan yii fi jógee li ñu seetlu ci Sénégal mooy ne ah Sénégal fi mu jëm baaxul Sénégal fi mu jëm baaxul kon ñaan nañ ko kilifa aada yi kilifa diine yi ñu waxtaan ak moom mu delloo si xelam ndax am na solo beneen bi nag mooy. ñun de ñu ngi koy accuser maanaam ñu koy jiiñ ñun jiiñ nañ ko ne jafe-jafe yi ne ci réew mi tey jii nii du kenn ku dul moom moo ñu ko yóbbee amul kenn ku ko mën a laam amul kenn ku ko mën a nattable ndax loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li am moo tax nag ñu ne am na lu tolloog cinquante en personnes ay jeunes ay ndaw yu ñu jàpp ci ay manifestations yoo xamante ne jàpp nañ ne police moo leen provoqué ndax ay partisans lañ ay Sénégal lañ ay sympathisants lañ yu dem seen bërëb taxaw fa ñu fekk leen fa cokkaas leen indil leen jafe-jafe ñu ngi nii tey ci kaso bi ñeneen ñi ne ñu ngi leen di torturer nañ leen bàyyi ñu dem ñibbi seen i kër. et tout de suite le seul responsable maanaam kenn kese lañ moom lañuy moom la ñuy jiñ lii yëpp mooy ki nga xamante ne ni moom force la xam doole la xam. ndax nee woon na bu ngeen takkee ay morso yu xonk man gisuma ko faaloo ma seen morso yu xonk man guerrier laa ragaluma ak nangami sàngam ku bëgg ay la ku bugg jàmmar loolu ku bugg histoire la na bàyyi askanu Sénégal ci jàmm na libéré nit ñoom ñu dem ci jàmm kon nag li fi ruuse ni yëpp tey ñetti organisation yi mu di FRAPP mu di FDS ak Y'en ñoo leen ko doon yeggee yéen askanu Sénégal di leen wax wasalaam